rapport yi moom bari na. Mhm. mais euh, am ay rapport c'est le minimum c'est le b.a.-ba d'une démocratie qui fonctionne et puis ay magistrats lañu amuñu woon pour xaar ay injonctions chef de l'État pour génne rapport yi. d'accord donc pourquoi boobu ba léegi génnewuñu ko ñoom magistrats yi nga xam ni dañu am possibilité droit devoir. vis-à-vis des Sénégalais génn rapport yi wax nañu ci mën a indil ay explication ñoom les magistrats. pourquoi génnewuñu rapport yi dégg génne nañu rapport yi qu'est-ce qu'il reste à faire loi règlement donc sanctionner les fautifs et c'est tout avec la plus grande rigueur qui soit parce que c'est pas simplement le fait que ñu détourner ay deniers publics deniers publics yooyu tey jii ñaata vie la coûté sénégalais yi ban retard la coûté sénégalais yi donc c'est à ce c'est de ce point de vue là qu'il faut sanctionner okay. donc euh, si c'est avéré si c'est avéré parce que ce sont des rapports il faut une enquête après et eh bien entendu dès, ouais. dès lors que la justice si c'est avéré il faut sanctionner absolument loolu moo mm. ci position suñu suñu naataange peut-être qu'il y a mm. d'autres sujets donc yu euh, ñu yu ñu évoqué donc basket nag mooy sama sport. favori moom la pratiqué au lycée ci la daan dem UHU à Louga donc sa sa dëkk avec le lycée Malick Sy. Mm-hmm. donc euh, bravo à l'AS Douane. bravo à l'AS Douane voilà on les supporte